ko léegi ñu bàyyi ko noonu vingt minutes ñu léegi li ñoo def mooy dañoo dem lee suñ table bi pour dina waaw comme suñu mbokk yi nga xam ne yéen a ñoo seetaan gis ngeen li nga xam ne nii moom la Ami Diallo toogal Ami Diallo toogal nañu li nga xam ne nii mooy laam lasagne bi mu nekk yàpp xar bi nga xam ni moom jël dal ko defal benn naaj xam naa jege bi moom ne ci jàngeen waaye ci mbokki Gambie ni ma leen di faral di waxee képp koo xam ne bëgg ko ci teewaat programme bi sa téléphone nga call ci 427 395 bu tere génn ñi nga xam ne yéen a ngi seetaan mën ngeen ñoo call ci 00204 waaye ba tey de képp koo xam ne bëgg naa man seen xarit maam bi ekkati sa téléphone nga call ma ci 36 345 61 ami nekk nag ma àndaa waaw mu nekkoon loo xam ne ne lu am solo la gis ngeen li nga xam ne noonu la Ami Diallo defaree li nga xam ne ni mooy laam lasagne bi nga xam ne nii am la mins bi lañ jël. dal di ko jël defar ko ba mu nice loolu daf ñu dee jox mbégte ak kontaante yëpp rek ci tukki bi nga xam ne tukki woon nañ ko dem foofu noonu nga xam ne ni mooy London tey ñu fekk fa doomi Gambien si ñu welcome ñu won ñu ne ñu li ñoo li ngeen di def kontaan nañ ci tey it dinañu neex lool ñu ne tam ñu kontaan ci pour contribute ci euh, li nga xam ne ni dafaa dal di defar rek li nga xam ne ni mooy euh, tooga bi moo tax ma ne leen bakku bi benn rek da saa su nekk ñun ñi nga xam ne yéen ak ñoo seetaan Gambians mun a nekk rek ñun dañoo ñëw fekkale fi nga nekk bokkaa yow li nga xam ne ni mooy tooga bi tooga ko ba mu daf ñoo neex lool waaye di fàttali nit ñi ne mun na la kool hello asalaamaaleykum hello asalaamaaleykum baam jeen waaw ku kan la na nga def jaama kan la waaw ka tooga bi neex na de waaw jërëjëf maa jànga ngeen si rek lu bari waaw mhm, ngoog loolu baax na man mhm. Awa Dieng laa tudd. Awa Dieng. waaw. ah mu ngoog Awa Dieng mu ngoog na def. man Paul laa def. ah Paul nga na waay. waaw. <laughs> maa defuloo dara. <laughs> otoga bi neex na de. waaw loolu la jërëjëf kontaan nañ ci bu baax a baax a baax. Mhm. dama may tuuti. waa acca ah toga gi de su ma la waxee ne mun naa la see may tuuti fi mu <laughs> tooga bi dañ ko toogoon foofu doonu si London loolu tax nga police rek ñoo ko tooga mu ne waaw loolu police kay def nañ yëpp Ami Jallow def na yëpp police mun nañ tooga de waaw yéen kay on jaaraama jaaraama buy buy buy buy <laughs> di bëggee sëñ boy ki foofu sa yooyu noonu bu baax a baax a baax waaye yéen ñi nga xam ne yéen ak ñoo seetaan saa su dañoo am mbégte ak kontaante suñ fi toogee di leen indi li nga xam ne nii da ngeen see jàngee bu baree baree bari waaye tey gis ngeen li nga xam ne moom la amu jaalo tooga am jaalo tooga ñu li nga xam ne mu ne lan muy laam lasagne bi lam la lasagne bi nag dañoo delluwaat ci ah, tooga bi su ko defee ñu gën koo mun a faram fàcce ma bëggoon a jeeg ñi yëpp rek ñu wàññi tuuta pare bi muy ready made bi ñu defaral suñ bopp fi mu nekk homemade dina ma neex lool jël kooku noonu ci laan delloo allo hello am dafa mel ni kooku noonu dem na ba tax na dama leen di wane rek képp koo xam ne bëgg naa bokk ci programme bi ekati sa téléphone da nga call ñu ci 36 345 61 su ko defee rek dama laa fekk bi sa biir kër dal di toogaa yow rek tooga bu neex a neex a neex waaye ami jàllo ñaari façon ñu tooga la ñu toogaloon xam naa incha allah um, talaata bi di ñëw dinañ leen indil um, li nga xam ne ni mooy rap bi nga xam ne ni moom la toogoon ñu naan ko shawarma waaye ma dal di jël kooku noonu ci line bi nuyu ko naan ko hello asalaamaaleykum maaleykum salaam waaw yow rek lay déglu naam. na nga def. maa fi rek defuma dara yaa booy. yaa ngi nice de. jërëjëf jërëjëf. <laughs> tooga bi moom neex na. dëgg la. neex kontaan na. dëgg la waaye yow ma bëggoon naa laaj. Mhm. naka nga gisee tey lasagne bi nga xam ne moom la Ami Jallow tooga ak yow ban jàngat nga ci am. ah man de jàng naa si parce que mosuma gis ñu ko defaree dama ko daan dégg rek lasagne lasagne so tey moom. waaw bëgg naa ko try sa weekend bii di ñëw. waaye nga invite du wax dara. waaw xam nga dañ koo dañ koo defaraat ñu recordaat yow Gambien lasagne bi ma seet tamit yéen naka ngeen ko munee. du <laughs> wax dara naa la koy jël naa sa number bi si screen. mais ku benn problème ku góorgóorlu leen de. dama bëgg ngeen def bem nice. waaw waaw loolu laay def ñun sa tànk waaye xaaral sax di nga gisaat yeneen shawarma yiñ defara yooyu noonu jeeg ñi daal léegi bu leen bu leen nomati dara li li ma def Angleterre danga fa tegee mu ngi nii bëgg naa mu ngi nii baax na kon euh, di kontaan si Gambien si di kontaan ci ñi nga xam ne ñoo ñëw seetaan man dama bëgg a jéeg ni képp koo xam ne yaa ngi sa biir kër nga dal di def benn baax ndax man soo leen defee benn baax daf maa neex lool wan naa leen ne fi mu nekk nii dama bëgg a ku nekk rek dal defar sa boppa nekk sa chef yi sa biir kër soo leen déggee mu ne nga nekk sa chef yi sa biir kër dafa am solo xëy suba rek tey ne man tey maay defar lasagne ñu naan lanay lasagne nga dal dem ci supermarché market bi dal di li nga xam ne ni mooy sa lasagne sheet si dal di jënd sa mean smith bi dégg ngeen ko mu ne chicken am na mun ngeen di defal beef lasagne mun ngeen di defal shrimps lasagne waaye ñun tey bi nga xam ne moom lañ jël mooy mean lamb bi muy min smith bi ngeen di jël rek jël ko dal di ko defaree waaye tey moom min slam bi leen jël bi nga xamee ne jël nañ min slam bi moom ngeen gis noonu fekk euh, defar nañ ko ba mbaa gis ngeen ko amul ñuluk naan maa ngee def ndox mu bari seet yàppa beem dina ñorom du ñor bàyyi leen xel ne min slam yàppa si boppam muy min smith daf dee am ndoxi boppam moom lim am solo rek mooy ne jëlal li nga xamne ni moy sa pobar nga def am sa seasoning yu safa saf yi nga xamne ni jeeg bu nekk rek xam ngeen ni yoy daf ci am solo def sa ay xorom def sa pobar def ci daal yi nga xamne ni nii daf ko jox yenen taste te yi daf ko gëna jox saf cafka nga dal di ko jël rek def sa tuuti diwlin diwlin bi nak si xayma mun naa nekk rek half poti diwlin half poti diwlin bi sax man ci man dama ne bari na waaye boo leen ko génnee mu ne wàññi ci half poti diwlin bi loolu rek moom ngeen di def na sigaar bi niin bu sigaar bi niinee rek nga dal di bàyyi na bi nga xam ne sa diwlin bi ñeme nga ko bu mu tàng jër jër jër jër na dégg ngeen li nga xam ne moom la Ami Jallow wax ndax am na nu mu tàngee jër jër jër liñ ci bëgg a ko ci am ndax min smith bi bu yàppa diwlin bi saasee da ngaa dégg mu ne dafa dankaloo waaye xam ngeen ne fi mu nekk ni bi mu ci defee laaj bi dal di jël poobar def ci dal di ci def um, seasoning sami safi moom ngeen gis fi mu nekk ni mu bàyyi nag li nga xam ne mooy diwlin bi na daf ko yaagoon a teg pour bàyyi diwlin bi um, xala um, sedda léegi nag bi nga xamee ne bàyyi na ko bi nga xam ne ni diwlin bi xale naa sedda bañ li nga xam ne ni uh, mooy yàppa bi mu dankaloo léegi nag li def mooy dafa na li nga xam ne ni mi um, um, hello ma dal di jël kooku noonu ci line bi. hello. asalaamualeykum. waaleykum salaam na nga def. jaama rek yow rek la ñoo déglu. dama bëggoon a contribute ci programme bi. waaw yow rek la ñoo déglu. Mhm. dama la bëggoon a thank you for interviewing my sister. yes you welcome. dama wax la ne tam tooga bi xam naa ne neex na feesewuma ko waaye she's been cooking that over here many times ñu lekk ko.